não, não. donc fi ñuy doore rek ci scandale du jour de ce 16 juillet moom moy Tom Tom nak ginaaw euh demb bu mu euh, ñëwé ci émission Bonsoir Sénégal mom nag xamlé na ni ki di euh, Serigne Ngoundou di président de la République ak euh, Ousmane Sonko euh dafa am jiixi jaaxa bu nek seen biir manam dañoo xawa réro donc ñu déglu ci Tom ñëwaat. di dafa am ñagas ñagas bu mag. ba ñu sànnante ay pic ñoom ñaar xam nga fi néna len keroog bi Ousmane Sonko woowee sëñ Ngundu kii di notre président de la république bi mu ko woowee sëñ Ngundu maman boobu. gisuma président de la république mais barki Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké dafa mer. Hmm? mais est-ce que xam ngeen lan mooy sëñ Ngundu. loolu dafa jot askan wi ñu leeral leen ko sëñ Ngundu mooy un menteur. Hmm? un un mara menteur. parce que parce que sëriñ buy sëriñ sëriñ lu di fen moom la ñuy woowee sëñ Ngundu. tay bo seetaanee théâtre saa njoogu bobu nonu mu tudon señ ngundu hmm? moy señ bu dikon don ab naxaate kat fen kat motax ci bir émission bi Basirou jomay fay na pic ban pik néna euh ki nu mu tudd euh, euh, nu tudd premier ministre bi premier ministre bi de waxna waxna ma luma metti Hmm. waaye dañ koo toog waxtaane léegi sénégalais yi du ñu bës baaraam foofu lan la Ousmane Sonko def basir Diomaye fay lu ko metti ma ne leen turu sëñ ngund bi dong ko metti woon mooy lu ko metti moo waral mu ni bi ñu nekkee ci kaso bi bi ñu demee ba xam ni dañ ma nar a fal président de la république nekkul lu ma préparé waajaluma sama bopp préparé ko ma ni ñu may ñu ma toog ak Sonko pour ñu waxtaan bi ñu waxtaan dama ne ko nag dañoo war a nekk ay xarit ci kaso bi nee na fa ñu nekkee ay xarit nee na Ousmane Sonko nekkul woon xaritam am na benn benn image bu ñuy wane euh, boo benn gaañ bu tent bopp bi kooku moo nekkoon xaritu Jomaay Fay mu ne Ousmane Sonko nekkul woon xaritam mu ne ko nag dañoo war a nekk xarit foofu ma ne ay waroo am na fa ndax gis nga doom bi nga jur ci sa gaño ñett rek nga koy tuddee maa la xamal lu mel noonu Sénégal yi déglu leen ma. ñett rek ngay tudde sa doom soit danga koy tudde sa sëriñ ndax am ci moom cofeel mhm. ak mbëggeel mhm. soit nga tudde ko say wayu jur mhm. ndax yërmande soit nga tudde ko sa xarit man de Sénégal doxaguma kë ba gis ku am doom ñu ne koo xutal mu ne ko benn waaye bu ma tasante woon ci benn oto rek dem na xaw ma fu mu dëkk. Hmm. doom da ngay tudde xarit. Hmm. xarit boo am Ousmane Sonko ab xaritam la. Hmm, nam la ñu yàgg ñoom ñaar yàgg bokk ci ay seen. Ah, man de dégg mu olof xaw ma lan mooy sëriñ Ngundu tëm nag nee na sëriñ Ngundu mooy ki nga xamante ne maanaam mooy comme sëriñ yi fi nekk rek sëriñ sëriñ yi fi nekk ñii di jaay ay xobu garab ñii di jaay ay nomb pour dem. doo dem prison ñii di jaay ay nombo pour doo am wujju boo ko takkee lendemain ñu takkal la wujju mooy sëriñ yooyu rek moom nee na maanaam sëriñ yooyu daal ñoom ñoo tudd ay sëriñ ngundu ak yooyu affaire yooyu daal ñoom daal moom daal nee na sëriñ ngundu mooy ki nga xamante ne du man maa ko wax de tom nee na sëriñ ngundu mooy ki nga xamante ne du wax dëgg maanaam kuy sëriñ sëriñ lu te doo sëriñ parce que saa njoogu moom lañ tuddee woon sëriñ Ngundu ci benn film série théâtre te ci théâtre boobu moom rôle boobu lañ ko joxoon donc sëriñ Ngundu mooy ki nga xamante ne du wax dëgg du samay wax Tom moo ko wax man a dégguma olof fii ba cent ans mun munoon naa nekk fii naa sëñ Ngundu sëñ du ma xam sëñ Ngundu mooy lan Tom nag moom xëy na dégg na olof nee na sëñ Ngundu mooy ki nga xam ne day wax luy safaanoo ak dëgg lu dul dëgg koo xamante ne day sëriñ sëriñ lu te du sëriñ comme sëriñ yi nekk fii naan la boo ma joxee sa jëkkër du takk wujj boo xëyee ñu takkal la wujj naan la boo ma joxee bu dee jigéen bu wérul nga doom bu góor ngay am nga dem am doom bu jigéen boole ko sax des fois nga am ñaari jigéen maanaam ñi nga xam ne dañuy wax loo xamante ne du ñu safaanoo du safaanoo ak dëgg nee na loolu mooy sëriñ Goundou man nag naa wax dëgg fa yàlla dégguma olof mënu ma ne noonu la bi dem naa xool vidéo bi gis sa njoogu ñukoy tuddé señ ngundu ci benn théâtre loolu man gis naa ko waaye sëñ ngundu lu muy signifier tom néna mom moy ko koo lépp lu muy wax du safano ak euh, day safano ak dëgg té da ngay sëriñ sëriñ du té do nek sëriñ moy loolu du samay wax akay ah, du samay wax de akay ah, Why?